ngi toll ci juróom téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti hectare ci juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett di ciy bay ceeb ginnaaw ñeenti weer ñu amal liggéey yu tar tey nag ñu ngi góob baykat yi di dundee yaakaar ginnaaw ñaari at yoo xam ne bay ñu yile suuf ndax nag ay jafe-jafe ci wàllu ndox mi ak coppite jaww ji yëngu-yëngu yi dooraat na ci mbégtewu baykat yi commencé ci casier bi donc euh, ñu ngi sant yàlla bu baax par rapport ak euh, ci li ñu gis euh, ci li ñu commencé nii presque on a fait quinze vingt hectares mais yàlla def na presque ils ont à cent cent ci leur endettement plus encore ñu ngi am lu ñu am yóbbu suñu kër. bile programme ñu amal ko ci lëkkaloowu fondation bu port autonome de Dakar. waa SAED ak baykat yi. tey ñu ngi fii ci aérolaw pour visiter casier phase 2 bi nga xam ne ci ndimbalu euh, SAED ak fondation du port ak ñoom seen taxawaay moo tax ñu mën a béy casier bi. hectare bu nekk dina jur juróom-ñaari tonu ceeb waaye bi la jéegoo am ko yombul woon ndax nag. picc yi ak gunóor yi. vraiment si c'était pas les piqueurs si on pouvait avoir dix tonnes à l'hectare moom c'est sûr je le fondation bu port autonome bu ndakaaru ci bile xalaat dina gën a fexe ba ndaw yi toog ci seen dëkk ndax nag bile lëkkaloo dina tax ñu am ay junni junniy liggéey ci secteur yu bari. fukk ak juróom-ñetti junni nit mën nañ dund si si euh, si casier bu mel nii. casier bu mel nii day jur ay xëy yu bëri ci wàllu liggéey euh, béy tool yi. mais également ci wàllu ngóob mi ci wàllu euh, intrants yi parce que da soxla ay intrants ay engrais yu mel noonu ñi koy jaay ak yooyu mais surtout ci wàllu transport bi aussi. baykat yi dinañu amal du yàgg dara saison bi ci seddaay bi dinañu daal di ji soble ak kanja waaye fexe am ay tracteur ak ay batteuse ngir gën a mën a ñoŋal bi les production ak fexe it ba programme bi ñu mën koo wëyal bokk na ci liy xaar ñoom acteurs yi. cuvettu ay relaaw lal di judduwaat lu ni mel dina woy te dina tax ba ñu mën cee sukkandiku bu weesoo suufu laawa yi